ci xam ni moom la ñu mën a jox Sénégal mu yor ko te du laajte conseiller xam lan lay def xam fan lay teg tànkam mën a dimbale jigéen ñi mën a dimbale jeunesse bi mën a jëlee Sénégal ci lii mu nekk yóbbu ko fu sori moom lañ ko yaakaar di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jox muy Khalifa Ababacar Sall. waaye cees ku ko xam xam ko ci ay yeneen leader donc loolu lan nga ñu mën a apporter ci Khalifa Ababacar Sall ak leader yooyu. waaw ak leader yooyu xam nga leader yi bëri nañ. waaye nag waa Thiès dañoo choisir le président Khalifa Ababacar Sall la région de Thiès choisir ko démb ñun ñu ñu nekk def bokk ci département de Mbour bokk ci région de Thiès ñu accueillir ko démb mbuur am mbégte am contenté moo tax tey bi ma jógee Mbour ma ni naa ñëw ba ñu accueillir ko Thiès ma retourné dem continuer sama liggéey dem caravane avec la jeunesse de ma commune muy Ngekoox Ah. kon donc lan lañ mën a espérer du 24 mars incha allah rabi. xanaa ndam li rek. Ah. le président Khalifa jël ko rek. doxal Sénégal ñu doxal rek. am nga yaakaar premier tour wala deuxième tour lañ jëm nag. waaye ñun dañuy dem deuxième ñu doon première rek. Ah. bu ñu demee deuxième door mu daanu lay doon door mu daanu rek lay doon. macha allah jërëjëf yaa booy merci. waaw comme ni ngeen ko déggee muy témoignage yi nga xamante ni soxna yi def nañ ko waaye tamit góor ñi ñu ngi koy def ci ki nga xamante ni mooy le leader du coalition président Khalifa 2024 muy kaddu yi nga xamante ni fii lay jibee chaque jour que jafee ñu leen di digtal li nga xamante mooy xew-xew bi nga xamante mooy xew ci campagne bi lépp wax naa leen ko leen di xew ci journée bi yëpp dinañ leen koy jox dinañ koy jottali ci anam bi mu gën leere leeree waaye ci anam bi mu gën a ñoŋee pour ngeen di jot les informations à temps comme niñ leen ñu bàyyi leen ngeen dund ambiance bi comme niñ leen ko waxee rek visite de proximité lay def mooy mottali yéene bi nga xamante ni moom la commencé woon ci région yi tey ñu ngi région de Thiès di mottali yéen a boobu ak Khalifa Ababacar Sall maanaam dina dugg ci garage yi waxtaan ak chauffeurs yi waxtaan ak mécaniciens yi waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy jaaykat yi maanaam les marchands waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi nga xamante ni dañuy xëy bëccëg daw dem daani seen doole diisoog ñoom xam seen ani bëgg-bëgg waaye xam li nga xamante ni tamit bokk na ci seen ay métit ci seen réew mi ñu nekk pour ëllëg bu yàlla defee jàmm mu fàllu mu mën a saafara yooyu noonu feebar donc loolu moo tax mu def visite de proximité bi muy mottali yéene bi dugg ci askan bi waxtaan ak ñoom ñoon leen di fàttali ba léegi yéen a ngi seen chaîne Sénégal TV maanaam lépp loo xamante ne information la à temps fi ngeen koy ame mais les informations réelles jërëjëf ñu bàyyi leen ngeen dund ambiance bi. ñu ngi seen noonu ki nga xamante ni mooy Khalifa Ababacar Sall le waxtaan ak ki nga xamante ni mooy le maire de la ville de Dakar muy monsieur Barthélémy Toye Diaz ñu ngi diisoo ñoom ñaar di waxtaan ku xam xalifa xam ni Barth mel ci moom ku xam Khalifa xam ni Barth doyloo xalifa donc bu buñ leen gisee ñoom ñaar ñuy waxtaan xel day dal parce que da nga xam ni waxtaan bii nii du waxtaanu dara lu dul waxtaanu jàmm waaye du waxtaanu dara lu dul waxtaan loo xamante ni ëllëgu Sénégal maanaam li koy jëmale kanam rek lay doon. may waaye dafa mel ni yegg si nañ ci jàkk ji nga xamante ni moo nekk ci fii nga xamante ni mooy garage bi di garage du Thiès Khalifa Ababacar Sall war fi dox si waxtaan si ak ñi nga xamante ni ñooy responsable yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci jàkk bi maanaam diisoo ak ñoom wax leen lan mooy yéeneem sàkk ci ñoom ñaan donc ñu déglu xalifa mi ngi nuyoonte ak ñoom.

ah lui il pense à nous. voilà <laughs> vraiment. mais xam nga ñun ñi doon doomu chauffeur ak transporteur man sam papa bu transporteur ah, ah. ma ne ko depuis PAMU. Ah, xam nga yéen ngi eh, fàttali ko PAMU depuis waxoon waxu changer parc bi. Mm-hmm. mais ñoom lu tax seen liñ defoon sottiwul mënoon ni da ngay changer parc bi te doo ko def ak ñu yor yi parce que ñaari yëfa ci est-ce que dañu war wax ak transporteur bi ou dañu war wax ak chauffeur bi alors il faut que ñoom ñaar ñu juboo mhm. ñaareel bi mhm. oto yu màgget yi nan lañ koy def parce que loolu moo doon deuxième problème bi troisièmement yan marque ngeen juboo woon da mhm. nga fàtte ñii dañu lii ñuy wax lii moo tax ma ni ko tey nag ñëw fii mhm. jàngat la pour man mhm. parce que comme que woon naa loolu ma bëgg xam tey fan la xel bi xalaat bi toll parce que lu munul ñàkk la il faut ñu changer parc il faut que ñu yeesal ko mais nan lañ koy yeesale ba mu oyof ci yéen looloo am solo parce que nit ki nag soo ko amee oto mu ciy dund ci dépense nga ni ko danga koy nangu danga ciy teg loxoom dara lan la nan la ak naka mu moo tax ma ni bon naa fi aw jàngaat tuuti parce que man sam papa léegi retraité na <laughs> mais yéen ñi fi des di lekk ci transport bi uh-huh. dañu bëgg a root ci yéen parce que lii lu ñu réglé war réglé la par force parc bi uh-huh. il faut ñu renouveler ko mais nan la mën amee uh-huh. ba mu yomb bañ bañ oyof ba ngeen bañ gaañu jërëjëf Sall jërëjëf jërë ngeen jëf jërë mm-hmm. ah, président Khalifa Babacar Sall mm-hmm. yaag Barthélemy mm-hmm. ak mbooloo mi ngeen àndal ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci gare routière Thiès mais ñu ngi koy def ci turu président regroupement des chauffeurs de la région de Thiès muy monsieur Pape Thié Yacine Diop mu absenté parce que yaramam moo tawat muy suma xarit waaye mu wuutuma fi parce que maa jëkkoon nekk président regroupement des chauffeurs moo tax bi ngeen ko yëgalee ni yéen a ngi fi mu ne na ngeen waxat man kon nu ngi leen di dalal jàmm bon nu ngi rafetlu aussi seen tànk yi bég nañ ci également mais ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu defal leen ndam bu kawe njort euh, ci li ngeen di yëngu en tout ñun gëm-gëm bi ñu am mooy changement dafa war a am ci réew mi changement dafa war a am kon su ngeen yoree parti euh, ñu dëgmal ay élection ngeen di dagaan baatu askan wi ñëw ci suñu kër fekk nu fi noonu loolu dina sedd suñu xol danañ leen ci ñaanal yàlla yàlla defal leen ndam bu kawee seen njort comme ni la ko mbokk mi waxee léegi man su ma wéy jur moog yéen ñoo nekkandoo woon assemblée nationale muy feu El Hadji Mamadou Diakhaté absolument eh, nekkoon député coalition soppi eh, yàlla dogal mu jiitu ji ah, eh, ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana kon bu nu gisee koo xamante ni dafa nekkandoo woon ak moom nun kooka dañu koy jàppee sunu wéy jur kon mu ngi leen di jàppee wéy jur beneen bi ci topp mu am sunu frère papa. Uh-huh. bu àndoon ak yow di liggéey. Uh-huh. yàlla dogal mu jiitu ji muy Mor Amina Jaxate uh-huh. nga def déplacement jóge Dakar ànd ak Barthélemy bi ak ñeneen dawal seen oto ñëw fekk nu Njaxate Njaasaan mottali seen kóllëre ak moom kon soo ma fi fekkee ay njabootam nekk fi la fàttali jëf ju rafet jooju ngeen defoon ci euh, parce que mënoon nga ne rek ànd ngeen di yëngu ci wàllu politique mu faatu toog nga fa nga toog nga ñaanal ko waaye defuloo loolu da nga déplacé wu ànd ak ay nit ngeen ñëw jaale si ko à Njaxate Njaasaan loolu nag mu nekkoon lu rëy ci nun kon bu ngeen fi ñëwee tey danañ leen fàttali loola wax ne loola lu rëy la ci nun euh, ngeen ànd aussi ak sunu doom Xaadim mm. Njaay sunu doom la mm. euh, ci Sarr moom aussi sunu doom la maak Moussa maa moom ñoo nekkandoo woon conseil municipal ci commune nu Chérif muy sunu doom di xale bu am taxawaay vraiment euh, nu ngi leen di ñaanal yàlla. ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci lii ngeen di yëngu. réew mi nag lu war a suppiku la. sunu parc bii comme ni ngeen ko gisee. Hmm. c'est des véhicules euh, qui datent de plus de trente ans. waaye nun mënuñoo tàggook moom parce que moom la ñu am wolof dafa wax ni nit ki la mu am moom lay dugge marché absolument kon ñun mën a gunoo tàggoo ak moom suñu bëgg-bëgg yëpp mooy ñu réformeel ñu ko changel ñu leen pouvoir bi nag am na programme bu ñu fi tëraloon ci wàllu euh, euh, renouvellement mu commencé woon ca président Ablaye Wade ci réforme aftu tata yi lawal nañu ko ba fii am nañ ci tata yi Euh, indi nañ fi beneen programme aussi bu war a réformer sept places yi def leen ay mini de onze place am na promoteur bu fi ñëw bu am oto yu mu fi joxe yooyu commencé nañ leen exploiter am na aussi yoo xamante ni ñu ngi en cours de construction au niveau de Senbus Industrie fii à Thiès mu nekk un programme boo xam ne aussi ci réforme bi la jëm waaye comme yaa ngi dagaan baatu réew mi ñu yéene leen ko lool ah nu jotal la ne foofu la ñu toll. Eh, bëgg na ñu suppil ñu set place yi. Hmm. bëgg nañ ñu suppil ñu minicar yi. Hmm. bëgg na kaar yi ñu changé ñu leen. ba ñu am oto yu mel ni yi sunu nattangoo yi nu digalool réew am. loolu daal sunuy tawat la sunuy bëgg-bëgg la ni muy gën a woyofe mooy. a ah, bu nu mënoon na jël sunu wata yi eh. defal nu ko comme ni Ablaye Wade defoon. ci eh. sunu car eh, caro urbain yi aftu yi parce que daf ko jël jël sunuy oto ci prime à la ñu dugal ko ci kuu oto bi ñu lebal ñu oto yooyu ñuy dawal ba fay nañu oto yi mat ñu ngi xaar bëgg yeneen yombal gu mel noonu ku nu ko defal ñu jël. Mm-hmm. yombal gu mel noonu wax dëgg yàlla ku nu ko defal ñu jël. loolu daal moo nekkoon ay kàddu yoo xamante ni bëggoon nañ leen ko ah, bëggoon nañ leen Abdoulaye Diakhaté ancien président du regroupement des chauffeurs de la région de Thiès. bon donc mooy ma tey jii nag maa ngi wax au nom de monsieur Pape Thiéyacine Diop. parce que c'est lui qui est l'actuel président yaramam moo tawat mais bu dul loolu moom ngeen fii fekk. voilà donc euh, voilà kàddu yooyu daal ma doon yëg. salaamaaleykum salaamaaleykum waaw lan cay dolli itam. Hmm. Euh, si sonn nañu. Hmm. parce que pour nga doon chauffeur transport en commun da am catégorie D euh, pour nga dawal auto transport en commun da ngay am oto day am agrément am licence am permis euh, am euh, nga am permis transport en commun mais am assurance au transport en commun tey jii pouvoir public yi ni ñu yéen à partir de minuit dootu leen daw ñu bàyyi ay véhicules non affectés au transport ñu tudde leen war gaynde ñu di ñu concurrencer déloyalement di liggéey ci sunu place ñun ñu taxaw di leen xool di jàkkaarloog ñoom ñu di ko def nag au vu et au su de toutes les autorités te ñun mënuñu ci dara loolu day wax dëgg yàlla naqaru chauffeuru transportu Sénégal la naqaru chauffeuru transportu Sénégal yëpp la salaamaaleykum ñu ngi ziar euh, suñu waajur wi di xalifa Babacar yàlla dogal wax ko ne ku ñëw Thiès xam ni Thiès waa bañkat lañ leen xamee woon donte ñu ngi ñuy tooñe naan nitu Thiès moom day sama xarit dañuy daje ci foire yi tabaarakalaaw léeg-léeg mu ànd ak tabaarakalaaw mbooloo mu am solo fekk ñu stand yi ñu waxtaan waaye euh, ngeen ñëw ci weeru koor yàlla dogal tam ngeen ñëw ci dëkk bu rëy cee ku ni Thiès xam Boubacar Sall ba daan taxaw naan booy bu leen nangu kenn ñooxal leen dee leen ñooxal seen bopp waaye yow mi Thiès waaye jooy nañ lu bari rawatina ku mel ni Iran waaye Thiès waa yëpp la doon jooytu ci jamono yii passé kii itam noonu nekk nit ku am fit dama koy wax faatu man ko yow booy am dëgër waaye Thiès dëkk la boo xam ni képp ki euh, wut ndomba tànk ñëw fi man nga yaakaar ñi fi jaar bari na trop waaye fii ngeen ñëw nag kii doon wax ni moo yoroon garaas bi di waajur bi nga xam ne moo ko yor lu yàgg yor bu rafet ba jox ko Pape am na keneen ko fi jaar sax ku ñuy wax Guèye waaye pouvoir kenn ci loxo benn loxo la nekk mooy ki nga xam ne mooy yor bakkanu doomu adama mooy war mooy wax ni fu ngeen mën a nekk bu ngeen duggoon ci ay palais tata tata tata tata dinaa leen jël seen bakkan bu ma leen soxla nee na man maa yor nguur xulillahuma yaa malikal mulk tootil mulka man tasha waaye bu ma la ko joxee dina yomb ni waaye bu ma koy jël dama koy buddi wa tanziul mulka dama koy buddi képp ko nga xam ne yàlla dogal la nga koy wut nga am mel ni xalifa mii ñëw ba ci buntu néegu yàlla bi gis nga ni mu mel ni yaakaar naa ni naari seen loxo dugg na ci Sénégal ñu bari naan naar baaxul te lu am naaru ñu ko jox jël seen wërsëg dajalaatu xoolal tey bu ñuy julli juma fii yëpp yëpp fii la ñuy jullee juma élément bi fii lay dugg rek xool li lépp ay basan lay doon lépp ba ca mbaar ma la jigéen ñi xool mbaar jigéen ñi la lële fala fala jigéen ñi du jule fii tamit noonu te pourtant suñu bakkan yi de ci loxo borom bi la nekk borom bi ñu jaamu boo ne alaaj ji bokk anam pël bu rafet ana góor gi tanoor ana maam Senghor donc loolu war na tax képp koo xam ne da nga yëngu ci wàllu pouvoir pour réew mi nga am gëm-gëm am sa xol bi euh, yéene bu rafet ndax yàlla xol rek la soxla bisu yowmal xiyaam mooy xaari a al xaari atu mal xaari a mooy bisu yowmal xiyaam yàlla nee na nit ñi dañu mel ni ay lëppaalëpp waaye xoolal yàlla nee na bisu yowmal xiyaam soxlawu ma alal yu bëri wu ma doom yu bëri xool bu sedd rek laay war kii bokk na li tax mu nekk sama xarit sama gaañ la Barthélemy kon nag li ñuy ñaan yéen ñii même léegi léegi laa wax ko nekk li nga am jël ko teg sama sama loxo ci jumaa ji amuñu basan amuñu ndogu ko ne xam nga daa wow ku ne la nga am sa poos teg ko sama loxo ma def ko fii ci ndogu yi man nag damay liggéey je suis responsable BMS électrique albi la déedéet nañu làmb léegi dama koo dogu de dama koo dogu non làmb leen bat làmb leen gisoon la rek nag moo ma doon làmb leen ku ne la nga am yàlla moo ma bëggloo ci mus ñoo gis yàlla gis na ko jooyal naa la nag keroog ba may jooyee la sa yaay wax moo ma tax ba ta lamin wuyu si ginnaaw waaw bañuy sa bañ koy sànni xeet daga maa ngi taxaw sama doom du sàcc du fen te ko ko sonal yàlla yàlla sonal ca kaw ca kanam man seen ma ne yow ca kaw ca man seen ma a ah. ma yàlla na ko yàlla jox mu ñëw gàngoon dañu ñoo ko jafe-jafe yi métti nañu jafe gàngoon dëli bi premièrement à part de waaw depuis daaw ba ren daaw ba ren zéro ñu ñu éliminé garde corps yi eh.